ni ma mel yéen a ko waral daal ci Sénégal. maaleykum salaam. tur naka la man may Roqaya Boy. ana ana lan ngay soññu Macky Sall. Macky Sall de maa ngi koy gërëm di ko sant yal na ko yàlla jàppale fu mu bëgg a yegg yal na ko yàlla jàppale. Macky Sall dama ko bëgg si sama xol ak soxnam Marème fay Sall ndax bu ñuy doog a falu si mbënd bi ñoo dugal sama doom bi mooy Mouhamed kon nag dama leen na war a gërëm. Mohamed ñoko jongal fa Dawda Fay japp sama dom bi yobbu ko fu ñuy ñu jongal ko kon na Macky Sall sama dom bi lañ amu ñu won jëgi tabassi mu woma dumbalé ma ndax sama njaboti kon na man Macky Sall mom la bëgg ci sama xol dama ka bëgg kër Amadou Ba mé ñun fofu rek lañuy fara di dem ñu na Billy Ba ño daan and ba kaas ba ñi ma def sama ah, masque sol sama chaaya ndax Macky Sall mo tax sama sol caaya ndax man musuma sol chaaya ndax boo gisee ma sol caaya rek dama bég si Macky Sall bëgg a Marème Faye Marème Faye ku bëgg a gijéen ñi lañ ma euh, Macky Sall la moom waxam bëriwul ndax man loolu moo tax ma bëgg ko góor du bëri wax te Macky Sall la lu muy def da koy def te bañ te bëri wax waaw. dañ ñëw fekk la fii ci investiture président Macky Sall bi ana ana ban yëg-yëg nga. li ginnaaw bu ñu santee yàlla ñu ngi sant président Macky Sall di sant soxnaam Marème Faye Sall man yëmbal laa dëkk te yëmbal noor makee ko moom. bokk kook kenn yëmbal moom makee ko moom ñuy santit suñu maire de Ndiaye waaw kon nag ginnaaw bu ñu santee yàlla sant Macky sant Marème fay bëgg guñ ko bëgg xoolal li ma yor gis nga ko nii photoom laa ŋàbb nii man photoom bu ma ko rombee si tali dama koy ŋàbb ma nit joggi ko ndax Macky dafa dafa noppi te ay jëfam bari ay waxam bari wut waaye ay jëfam bari na na jàppale jigéen ñi jàppale xale yi jàppale élèves yi té nak tour katim balit yi dañ leen a bàyyi waaye si mbam gat na way si jur gi la ñoo lañu wara gëna fonk na yërëm jigen jappalé xalé yi té yërmande yërmande gi moy bu muy fayanto kilifa du waye nak nag fay royu kay la si ñun jigen ñi dañ ko bëgg ba fu Marème fay jaar ñu jaar fa. ajiw Diouf bay ba falé Macky Sall ba paré lan ngay xaar ci mom limay xaar si Macky Sall yalla defal lafal ko ciat lii mu toog na doon laayam te don lo xamante mo gën ci mom parce que Macky Sall doon na nit koo xam ne nan ko bàyyi rek mu yeggaleeg sagoom parce que buñ ko bàyyee mu yeggaleeg sagoom rek nit la te boolewul dara ki wax liggéey doo nga ko tax a jóg te boole si jàppale na ndaw ñi jàppale na xale yi jàppale jigéen ñi parce que waxuma la dara waaye financement boo xam ne dala koy jox ngay liggéey yaa ngi dégg Macky Sall daal ñëpp la jàppale boole si waxuma la dara ak Ila Touba bi ak feneen ak feneen li liñ si mën a wax daal bari na waaw ñu koy ñaan nag ci kàttanu sunu borom yàlla na ko yàlla may ba mu yeggalee sagoom te nu bàyyi ko nag may ko nag ak dal parce que moom nit ku dal la nit ku teey la te aussi tamit Marème fay Sall tam macha allah jigéen ju mën góor la parce que moom it mu ngi jàppale jigéen ñi teg leen ci yoon bu baax ku ko xool daal doo tëdd doo nelaw parce que Marème Faye Sall daal macha allah ca kaw ca kanam. ñoo ngi lay sant di la gërëm président. ñoo la bëgg ci sama xol man dama la bëgg Fatick laa dëkk Escale kër ñoomen kay dama la bëgg président li nga bëgg yal na la ko yàlla defal président yàlla bàyyi la fekk jàmm ñuy am sixième nag ngay dem di dem di dem di dem ba màgget loolu la ñu soxla parce que yaa ko liggéey yow président ñoo la bëgg ñoo ngi lay ñaanal. ñu koy ñaanal bu baax Marème Faye Sall moom moo ñu soppi ñun xamuñu woon dara ah man boo dégg nga li ma la wax bu dul woon Marème fay Sall moom mii tey jii ñun duñu xam dara dañu la doon nekk Dakar dem di wëndeelu mais dañ indil yëpp nuñ koy waxee te bourse yi moom la ñuy indil ñuy liggéey jaaraama Marème Faye Sall jërëjëf Marème fay Sall. vraiment kontaan nañu. président Macky Sall li mu bëgg yal na ko yàlla may ndax vraiment jàmbaar la plan émergent bi mu wax fulal na ko dëggal na ko ndax loolu la wone Sénégal ba tey nit ñi dooleel ko jàppale ko dool topp si ginnaawam kontaan nañ si lool nag. Euh, première dame nag moom dañ koy bàyyi ak yàlla